lu lu lu jafe la seen déggin ñoom lu jafe la nit ñi am déggin bu tol noonu te jéem ko nag ayul ndax jamano mooy dem ba àgg fu nga xam ni boo déggul dund rekk saali te ngëlëm baaxul ngëlëm baaxul ci dund baaxul ci diine baaxul ci dara te mën nañu dem ci ngëlëmte ba ci biir ngëlëmte bi ñu wedd ci yàlla sax te doo ko yëg te jaru ko moo tax teey ci seetaat ko jàngaat ko tëralaat ko nafar ko ci yii jamono farata ndax du fii rekk gëlëm adduna yépp gëlëm fi mu nekk fii def ci jël wàllam rekk waaw fii nag jël na ci wàllam wax dëgg yàlla léeg nga dajeeg nit mu di la wax loo xam ni moom xamul sax li mu lay wax lan la nga xam ni dafa gëlëm parce que jamono bu indee yu bari yu kenn xamatul ñépp dañuy gëlëm waaw te boo gëlëmee nag mara day tàlli weddi daf laa yomb waaw te firi àdduna ku gëlëm mënu ko mukk firi dund itam ku gëlëm mënu ko mukk te crise lay doon boo xam ni lu ne xaj na ci guerre yéeg xaru yéeg lu ne xaj na ci dafa fekk doomu aadama nag yàlla sopp na ci moom léeg-léeg mu saalit sopp na ci moom léeg-léeg mu saalit moo tax kenn ku ne di fàttali sa moroom farata la kenn ku nekk di fàttali sa morom farata dafa mel ni sax am na lu ngeen di tudde crise de conscience mais amu fi amu fi ndax nit ñi seen ñor àggu ca ku yonent yu mag yeeg ak taab yu mag yi lay dal une crise bi gën a ci ñun crise de mémoire waaye crise de conscience yonent yi lay dal dal na yonent yàlla Nous ba muy wax yàlla ni ko nga abandonné ma dal na yont yàlla Moussa ba mu naan yàlla yaa ngi bàyyi ba ma organiser sama communauté nga wooma ni danga may jox les di commandements ndeke pour tas sama communauté sama gannaaw a tax nga di ma woo yonent bi moom la ko ca dal moo gën a metti bi ko bokkam yépp bàyyee tey boroom doole am na lu mu daan dalale xelam mooy wàccu alquran amna lu mu daan dalale xelam moy dikku Jibril ci mom yàlla bayiko ba bokkam yep bayiko mu diko yonne Jibril mu diko indil ayat yi xëy rek coupé ko purement et simplement da waxuko lutax moom it mu dem ba àttanatu ko mu yéeg ca xeer wa pour xaru xaru rek moo ko dese woon kooku crise de conscience yàlla ko mujj dabaatal ma waddaaka rabbuka wa ma qala waaw maa mel noonu mën a yàlla bàyyi leen ma ma nekk yàlla te ngeen nekk jàmm mo gën ndax it duma tàmbali lu ma àggalewul waaw loolu suñu ñor gagul ci ñuy am crise de conscience crise de mémoire rek suba su ne nit ki ngeer ngi suba su ne waaw suba su ne ko ngi boo ko ko waxul ci suba sa ca des mu fàtte luy ngeer ñun foofu la suñu nattu nekk ne bu fekkoon ni doo fàtte kon dana bare loo dul yàq wante da ngay gaaw a fàtte liñ la wax waxtu wu nekk waxtu wu nekk moom ngay fàtte te bare fàtte mooy indi ñàkk mokal, ñàkk mokal mooy indi sos bari fàtte mooy indi ñàkk mokkal ñàkk mokkal mooy indi sos ah bu ku nekk sosee nag àdduna tukki mat na bàyyi xel sunu maam aadama la ko daloon ba tax ñu wàcc ko ci kaw suuf crise d'interprétation la woon ëpp na xeb lëf li nga tudde ko lu la neex ëpp naa def oto mag ñi daan wax ni jàng téere yépp am kilifa ku gën te sunu borom dafay buur bu neexa a àndal ndax du saalit doole ma tax du ñaan doole ma tax tabarkalla li mu man ak ni mu ko manee ku mu ca boole boo ko defee sa kilifa mën na am nga dal wante am na loo xam ni téere téere faju ko ndax xam-xam ñett la moo di yi ñu tudde ak nga xam ni moo fees dell bibliothèque yi moo fees dell université yi moo fees dell àdduna bi waaye am na yu ñu tudde diraayaat moo des ci dënnu mag ñi am na sax bu leen gën a kawe ñoom ñépp muy lëddu ni yat yi su ko defee ki nga xam ne téere rekk la jàng bu dajee ki jàng téere ba noppi yàlla defal ko mu bokk ci ña dund ci bir dirayat yi dégg-dégg yi dafa wuute waxuma la su yéegee ba ci la duniyaat yi nga xam ne daf lay may nga nekk en contact avec les autres univers yonent yi yàlla mosal na leen ci aktab yi yàlla mosal na leen ci mu mel na rekk ci biir jamono crise bi gën a garaaw mooy ñàkk kilifa waaye itam am kilifa gu mat kilifa yombul de yombul de ba tax na caalit yi bare na wante du soppi namm namm yàlla caalit yi bare na nag xam naa ku ko mënoon nga nga jàngati waaw ku ko mënoon nga jàngati dama dama amoon sama benn mbokk daara na bokkoon daara bu ñëw ni ma seen kër mu ni ma nun noo man ci lugg jaan ak mocc jiit ma it ma fexe ba am jiit indil ko ni ko ayca mu jàng jàng jàng jàng jàng jàng ba mu yàgg mu tëfli laal jiit ja jiit ja ni ko raw mu ni ma defe naa ni daal am na fu ma juume ma ni ko ay ca commencé waatal bokk mu jàng jàng jàng jàng ba àggala si laal jiit jiit ja ni ko raw ba ca bu ñetteel ba

ne jaaman bay jaxu nee na buñ la nees kii mën na kaay ñu yóbbu la mu faj la nee bés bu ne mu am lu mu def ne gëtee wér ba benn bés nga ñëw mu won la taatam nee na booye boo rekk fabu wuti foo jëm looloo ko dese woon wutil sa borom moo ci des mel ni ci boobu ay jamono lañu toll wante yàlla moom du soppeeku jamono dana soppeeku nit ñi dana soppeeku yàlla moom li mu bëgg du soppeeku mu mel ni dafa mëtale àdduna bi nag su ko defee kenn rek la nu am pour làqu ci gannaawam mu di yonent bi sallallahu alaihi wasallam bu ko defee guddi gi di guddeem ñu jéem waxtaan ci wàllam moom dafay nit ku kenn mënula wax ngëneelam na mu toll dëgg la sax daan na tagg yonent yépp waaye ñoom ñéppit moo leen doon wante daan na leen tagg tagg bu metti xam naa ko dul tooñkat lool daal dinga ko may jàmm ndax taggal na ñépp ñépp seen kilifa daan na yéem lool lool yont yàlla Muusa daan na wax ni li ñu ko teg te onkul moo ëpp fopp li ñu ma teg ci nattu te lu am solo la mu waxe ko noonu xam nga yont yàlla Moussa na moo ko yar te na amul woon doom moom mooy doomam te na alalam kenn xamul na mu toll te Firawna bàyyi na ko ci biir paleem lu ko neex mu def Firawna bàyyi na kook alalam ci biir alal jël la dund ba xëy toll ni góor yépp te yàlla itam bëgg-bëggam mooy fas yéene yónni ci Firawna pour wax la yàlla fi muy jaar mbir ni muy sewee yont yàlla Muusa ak alalu firawn ak daraja firawn ak kàttanu firawn mu yaru kër firawn dëgër fit bu deespoor mooy ci sut nit ñi lu mu doon rekk yàlla jox ko ci lu mu joxul kenn mu xëy benn jote bu tuuti rekk tax mu rey nit te doomu Firawna doonte doom bu adoptif la rey nit lu mu war nekk moo ko rey weñ benn la wante yàlla fexe na ba sànni ci xolam ragal ndax li mu def joxu ko itam xelu mu dem ci na pour mu protéger ko déedéet daf ko jox xelu mu daw génn dëkk ba te loolu rekk la ci bëggoon mu génn dëkk ba mu di ko natt muy taxawalu ba am fukki at àll ba Grèce ga mu noose woon ca kër Firaaw na yépp rees ci àll bi mu soog koy may xelu ni ko jàppal ci yàlla ñibbi parce que koy may xel moom bi muy ñibbisi nag xam nga bokkoon na ci seen aada nit ñi am kàttan bu guddee dañoo taal safara ci kaw montagne yi pour ku ko gis gindiku boo gindikoo boo ñëwee dafa fekk ku la jox loo lekk dafa fekk ku la tegtal foo war a jaar yooyu yëpp dañ ko daan def pour wone seen kàttan na mu toll moom itam ba mu gisee safara bu mel noonu muy dem di seeti ba xam ndeke góor gu mag gàngafa di ko xaar إنني أنا الله إنني أنا الله رب العالمين يا موسى وخ منكو في تكو sew-sew yooyu ci aalamul asbaab lu mat di toppatoo la ndax xew-xew yi dafa bare te doomu aadama yi itam dañu gaaw a saalit te saalitee da ngay dellu ci pexe te yàlla bëggul pexe parce que kooku moo ko moom su ko defee ba mu demee war a ñibbi ñu teg ci kawam yónni ko ci na pour mu woo ko jëme ko ci yàlla lu mu fa noosoon jeex na takk coono rekk fi des léegi waaw ñi mu gën a bëgg ndegam ñoom lay teg loolu mu gën a bëgg ndegam ñoom lay teg loolu xanaa war nga am fooroye bokk ba muñ ndax ñun benn baat dañ ciy faral di jum mooy nattu nattu yàlla ma nattu ñu defe nañ ni nattu mooy lu metti te nattu moo di foo tollu baatu foo toll yàlla daf koy wax ak jaamam te ci nattu la koy jaarale foo toll foo toll foo toll bu ko defee doo xam nattu nattu la walla xéwal la nattu doo xam fitna la walla xéwal la su ko defee ci kaw bañ a dëgër ñu bare dañ naan na nga muñ na nga muñ na nga muñ te muñ tëralin la tëralin rekk la ci jamono bu yonent bi dem mukk wante sunu ko seetee ak na mu déggee dund ak fa yàlla jaar ak moom dem ak moom ba di ko laaj di laaj boromam kañ ngay taxawal saa mu ni ko boobu du looy xam ndax dama bëgg mu bette te yooyu yépp pour yokk yitte taxoon mu wax ko ko mu mel ni itam ci biir loolu dafa am lu dox ci diggante bi li dox ci diggante bi mooy ci xeriñam ba tey mu wut ñu nga xam ni dañuy ëpp réew doole coloniser leen te buñ leen coloniser ba noppi daani jikko ya ñuy def ci ñoom dafay xaw safaanoog jikko yi yonent bi bëgg ñu am ko wante du leen digal pour ñu xaru mais du tee ñoom ñu war a am lu ñu bàyyi xel ndax nguur nguur gi ñu gis léegi nguur la gu nga xam ni buur bu jigéen moo ko yilif buur bu jigéen bi mi ngi tudd mone am na prince héritier prince héritier bi mi ngi tudd revolver su ko defee diggante boobu jikko bu ne mën na fa yàqu jikko bu nekk mën na yàqu ci diggante boobu ba tey pour defar ko dafa am façon bu ñuy mëna a dégge yonent bi dégge ko alquran mu nekk ndimbal bu ñu ko deful rekk ngëlëmte dafay sax ba faw te dina dem nag ba dootu ko jar mu mel ni looloo tax bu ñu amee occasion guddi gu mel nii nu seet ko ak yéen waxtaane ko ak yéen fu ñu toll woon du ci kilaab xam nga wax nañ leen ni kilaab mooy ñu dellusi ci rab yi mooy xaj yu bare dinañ ko tudde giir walla ñu def ko benn xaj rekk mu bañ nekk kilaab nekk këlb walla mu nekk xambaane xaj ñu tudde ko kuleyb mais ci biir loolu dafa am bu ko woy te moo di cofeel moo tax yàlla binduñu yàlla dafa bëgg boppam ba ñu ko seedeel kàttanam donte soxlawu ko sax ndax wallahu ganiyun anil alamin

mu wax ni تسير وراء الحب تسير وراء الحب أعجوبة الكون يطالبه بالعين من لحظة العين فقالت ولولا الحب لا يصل امرؤ إلى الله لو قادته أعجوبة الكون وللكون آيات وفيها دلائل وللكون ما للكون من عجب يغني ولكن سر الحب خاص بأهله وكل محب يفهم الشأن بالشأن فلا تسألن عما يزيدك حيرة ولا تسألن عن ذاك بالكيف والأين تضايقت الأسباب لما تساءلت أحقا يقاس الحب بالمد والوزن فليس بمد أو بوزن وإنما يقاس بما في الخلد أمنا على أمن وما زينة الأشياء إلا تصور طرائفها كالحب في جنة عدن ومن لم يذق ما فيه من قبل نشأة فكيف على الأحباب يثني ويستثني يمر بباب المصطفى وهو لم يكن ليعرف أن الباب من حبه يجلي ولله في تأديبه رمز حبه وللمصطفى من بعد ما راق من حسن على حبه يبني رضا وتقربا وكان عظيما من على حبه يبني وفي حبه كالفن ما أعجب الورى فأيد أن الحب أرقى من الفن هواء لطيف لا يدنسه هوى وكل شعور فيه نور على عيني بحكمة من لا يعرف الناس خلقه ولو ميزوا الأبعاد بالجنس واللون فمن لا يقوي باليقين حياته فأيامه تزداد وهنا على وهن وفي حب خير العالمين وقاية وقانا به الباري أذى الإنس والجن nga cofeel cofeel la bëgg ñu firi ko luy cofeel cofeel bokkul ak yéem cofeel bokkul ak nobel cofeel toq leer la bu yàlla di def ci xolu jaam lu la mën a yéem ci àdduna surga la ci cofeel mu mel ni kon nag yi ñoo feeñal yépp mu mel ni cofe la ko lal bari na ci loo xam ni ngëlëmte moo ko lal te dañu nekk ci système dañu nekk ci système bu nga xam ni def na lu nekk pour jariñoo àdduna def na lu nekk pour yéem doomu yi wante itam taxul mu àgg ci daraja cofeel dafa am bés yonent bi di xalaat mbiru Yuusuf xam nga yonent yàlla Yuusuf mbiram lu yéeme la yonent bi di ko yéem ci juddu juddoom euh, yonent bi ku amul moroom la te xalaatam dafa gën kawe xalaatu nit ñi ba noppi wàccaat pour jëriñ leen muy tagg benn yonent bu ñuy wax Yusuf di ko tagg ba mel ni tagg bi dafa ëpp te fekk na ëppul wante dafay wone ni yàlla lu ko neex mu maye ndax Yuusuf moo gënoon xaleele magam yépp bañ ko fexeel nañu ko dugal ko ci teen sàmm génne na ko jaay ko dem na ca dëkk ba am fa nattu ñu tëj ko kaso kaso ba def na fa fukki at ci xere ñu yàlla bu demul woon kaso kenn du ko xam ci alamul asbaab lañu nekk yàlla lu mu bëgg daf koy wutal sabab euh, ba mu ci jógee am na lu mu ñaan boromam mooy li mu gis buuru réew ma di ko yàq mu may ko kàttanu mu yéwénal ko te bañ ko may nguur ndax bu ko mayee nguur rekk ko bu ko gàllankoor ko ba ci la ko yàlla maye kàttanu la yàqu woon ci réew ma ci wàllu alal yépp mu defar yooyu yëpp su ko boolee nga xam ni mën nañu ni mooy buur bi léegi ndax dañu wax ni di buur di damel di nit a ko gën parce que nit a ëpp doole buur moo ëpp bu euh, doole damel ndax moo leen ëpp xel te ki ëpp xel moo la man su ko defee yonent bi ni ndax mës ngeen gis ndono bu toll ni bu Yuusuf di ko yéem ndono la bu nga xam ni euh, ki ko amee bàyyam lépp la baayu baayam lépp la maam ja ca tegul lépp la yàlla booleel ko ci yi mu ko ci booleel nit ñaa ngi yéem benn tubaab bu wax ci yonent bi presque lo xamni ni imam avec rek moo ma wax ci te min ko enquête yu mu def ba ci bu voyage en muy tegtaloo waxu yonent bi ci yuusuf ba delloo mbàttu bi ci ndaali te mooy wax ci yonent bi lu toll na li mu wax ci yuusuf te tubaab la te yonent bi li mu wax yépp moo nekk ci yuusuf yuusuf doomu kan la doomu jacob la doomu yàqub mais jëkk mu nekk doomu yàqu ñu di ko tudd fekk na buur la woon roi la woon parce que ku yar buur buur nga gestionnaire la woon parce que alal ji yàqu woon yëpp defar na ko yonent la itam parce que yàlla wax yu na ko ñetti cër Il était roi, il était gestionnaire, le plus grand d'ailleurs, et il était prophète. Fils de Jacob. Jacob est philosophe et prophète. Fils d'Isaac. Isaac, père d'Israël. Petit-fils d'Abraham. Patriarche des patriarches. Père du monothéisme céleste. Il a un ni c'est trop c'est trop pour un homme seul pour un seul homme parce que doit venir au partage euh, kuy xamee noonu sa nawle di ko mën nga yar sa njaboot yàlla xam na ko loolu moo tax euh, Lamartine mënatul woon téye boppam fokk mooy mu mu delloo mbàttu bi ci ndaale tagg yonent bi tagg ko tagg na ko lu nekk su ko defee ci biir loolu bu ñu dee dund jamono yu mel nii ñi ko séq bu ñu trichewul te ñi ko seq mooy ñan góor ak jigéen ñi ko seq ñooy ñan mag ak ndaw ñi ko seq ñooy ñan ki am kàttan ak ki amul kàttan ñi ko séq ñooy kan mooy ñiy dund ak ñi dee moo tax la jaaxir waxoon ni jamono dina ñëw ngeen gis ni l'humanité ci boppam mooy tricher avec l'humanité c'est-à-dire les hommes avec les femmes les adultes avec les jeunes, les puissants avec les faibles, les vivants avec les morts. Et c'est beaucoup plus grave. C'est beaucoup plus grave. ñiy dund ñooy foye bàmmeel yi nax yële sax mi ngi fi góor ñi dañuy nax jigéen ñi rekk mag ñi dañu nax xale yi rek lu ñu def ne xale yi lañuy ñuy seen avenir ban avenir ban avenir koku bokul ci sunna yonent bi yonent bi sunna moy bëccëg démb passé na ëllëg ñëwagul top dol tay ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها yonent bi loolooy sunnam nee na boo fàttali ko démb yàq boo ne ba ëllëg yàq nee na bëccëgu tey bi nga moom defar ko ba mu jag loolu mooy li nekk du nag ñu ni ëllëg ndaw a ko moom mën nañ ko wax waaye ci aada lay dellu du dellu ci àqiqa ci aada lay dellu wante du dellu ci àqiqa sunu benn maam bu ñu wax jaaxir moo ko waxoon Alaaji Usmaan Kan ku daan tiitaroo jaaxid la boo waxee mu ni mooy maamu ñi sant kan ñëpp te neegar la woon neegar la woon bu nga xam ni baayam du woon borom barke wante itam bëggul woon ku yeb baayam e, te booba jàpp nañ ni nit ku ñuul xelam warul man sore loolu def ci moom beneen jom lu mu jàng xeeb lu mu bind xeeb bi ma laajee listu li mu taalif ñu yónnee si ma ko taalif na téeméeri téere ak ñaar fukk ak ñeent